asalaamaaleykum mbokk yi tey la gaaw ñaar fukki fan ci muharram muy weeru tam xarit di weer wi njëkk ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn ci gàddaay yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëppoo ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru juillet ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñaar fukki fan bokkul ci lim yu fàtte lim bu rafet la kon tey ci gaaw bi rafet na li ñu ci gën a taamu mooy ku ca watu li ñu ci tere tere wattandiku moom gaaw mooy ku ca sangu wala ku ca fóot ñaanu bis bi tudd naa sax sell yow yàlla sunu boroom ak sa cant yàlla na nga ma jéggal subhaanaka allahuma rabbana wa bihamdik allahuma axfir lii subhaanaka allahuma rabbana wa bihamdik allahuma axfir lii xadiisu bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bég leen seen boroom ubbi na ab buntu ci wunti asamaan di leen puukarewoo ci malaaka yi di wax naan xool leen sama jaam yi joxe nañu jullik farata ba toog di xaar geneen xaddis bi ibnu maaja génne na ko qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam abshiru hada rabbukum qad fataxa baaban min abwaabi samaai yubaahi bikum almalaika yaqul unzuru ila cibaadi qad qadaw faridatan wa hum yantasiruuna uxra axrajahu ibnu maaja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 soo ko féetee soowu ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètre dina yokkal benn simili soo ko féetee gànnaar wala saalum téeméeri kilomètre dina yokkal benn simili jant bi dana fenk 6 heures 51 juróom benn waxtu yi tegal juróom fukk simili ak benn di so 19 et 35 juróom-ñaari waxtu yi tegal fanweeri simili ak juróom yàlla nanu yàlla nangul te nangul leen amin